teer sax Moustapha kenn bu ñu tardel doy na waar daal ci beneen biir bu ñu tardel ñu euh, tardel ba tey waaw sàmm yëkkati fa ay kàddu mhm. jëmale ko ci xale ñu manifesté ñu bëri nag tontu nañ ko mhm. manifesté ci dee li ñuy liggéey du mhm. ñu bëri am dégg-dégg bu kàddu mi yooyu moo amuloon woon place ci grande mosquée bi parce que damay dégg ñu naan xutba imam loolu du xutba loolu jëw la ah waaw jëw ci biir juma jeunesse senegal la jëw parce que biir na ko ni li tax mu leen di jàpp di leen dugal safara comme moom moom safara biir na ma ni loola ba muy xew moom amul fitu génn ci mbedd mi jaamaarloo xale yi kon tey bu wéetee fa mu nekk di jël paaka waxuma xeer di ko jam xale yi ah wax seenu ñàkkite xamoon ni léegi li Serigne Cheikh waxoon moo ci nekk Moussa mag ña war a yar seen bopp du xale yi de. Ah fii Sénégal problème bi ñu amee du problème mu xale yu xamadi ndax Oudé ni la gisee noonu la lay ëwalee ñun mag ñuy xaw yi sutura la ñu yore ñu ñàkki teggin ñu arrogant moo tax xale yi wa idal muallimu lam yakun adlan masaruhul adalat bi shababi daila ñu ngi may dégg xam nañ li wax père de famille bi ci biir kër gi bu ñu tegee musique mu kàppar ñi ba la yàlla xam doy na ba pare génn doom yi dugg si mu naan leen bàyyi leen fecc musique mooy kan. mais am na ñu jàpp ne tamit dafa doon yedd ndaw ñi rek pour bàyyi ñu bàyyi. loolu du yedd ndaw ñi xam nga ñu mu waroon a yedd bi mu tëjee jumaa ji pendant ñaari at wala ay weer moom jumul grande mosquée ëpp na at ëpp na at ëpp na at d'accord naa ci parce que jàngoro moo ñëw xam lu mu waroon a ci du bii la premier tabaski après Covid bi. Euh, daaw julli nañ daaw xam nga lu mu waroon a wala mu tëje ko mooy ni Covid bi jaar na fi musiba bu nekk xew na fi plus particulièrement jumaa ji bu mu jàpp joxoñ boppam ne sama jumaa moomul jumaa ji jumaa ji ba mu koy tawax bañ koy tawax boo demee mu ngi ci mbedd mi di fubal. moomul jumaa ji ba muy fëgg dënnam naan sama jumaa ji covid bi xew na ci jumaa ji ñu tëj ko def nañ fi loo xamante ni sax tere nañ ko ñoo xamante ni mooy boroom ñaari tur yi di fi di fi di fi def lu jaaduwul léegi maa ngi laaj yéen ñi toog na ko Maodo la doon defee ci kanamu Abdou Diouf yéen ñi toog tey jiite réew mi waaw xaalisu covid booba ñu dajale woon te ñun ñii ñu joxe ci su ma ne ñun ñi ñun ñi seq jumaa ji yëpp mu jullit yu fiy julli ak comité de gestion bi ñu mënti doon wax leen ñu xaalis booba naka la demee su boobaa day kenn du ko wax lu ñaaw dañ naan jaar na yoon waa mais Moustapha imam moom moom dafa am résidence safara wala dafa am résidence àjjana day day waare rek non du waare loolu day waare mais loolu dima dima moom dimension âge bi mu egg sax ak bu fekkoon ne am na tuuti xikma tuuti xikma doo waar nit naan ko safara nga jëm parce que safara alalu yàlla la te yàlla moo xam comme ci dugal ak comme ci du dugal maandu leen boo ne xale yi li ñu def rafetlu wu ma ko donte wax jooju sax waroo ko wax ñu ne waaw waaye xale yi ku ci dee safara nga jëm moom bu dee fu jëm moom mi taxaw ci jumaa ji di jëw ak di wax ci jumaa lu ci bokkul du julli du sant yàlla du julli ci yonent bi du wax nit ñi li ci gën a métti sax li ci gën a neex sax mooy ba mu koy wax mbooloo ma yëpp daanaka mel na ni jóg nañ dem seen yoon. dafa des nit ñi dama ah nga xoolaat vidéo yi nit ñi xam nga li ñu bëgg a dégg nga leen di wax waaye doo leen wax lu la neex ak lu arrangé ñi nga jàkkaar lool te gis nga li ma gën a dérangé mooy gis nga da ko wax mais dama delluwaatal ci image yi premier ministre président ministre de l'intérieur dañu tiit. dañu tiit di ko xool dañu tiit ba seen waxuma xool xam nga xool mooy nii xulli ko bët lañ def nii parce que xam nañ ni li mu wax waxu woon fi ko waxee du place ba ni ko waxee du noonu ñun da ngay yaru yar dafa baax màccinu dimb dana tax dimb weex sooy wax nga sóoraale ni say naw la nga tiim te gënoo leen mais tey ji am na tamit beneen wax ju ñu ko yëkkati woon tamit mooy cotisation ci biir jumaa ji ñu ne waxee du noonu ànd nga ci oh, xam nga gis nga wax bu commencé départ ba yàqu mook fondement buy bon moo ñooy yem lu ñëw tege ca dootu rafet même bu juboon dootu rafet parce que fondement ba yàqu na. erreur bi moo moo continuer ba yegg. tooñ na waa Tiwaawan tooñ na leen parce que taxaw naan way sama nangam jéeg sama dugg fi génn fi. ma ci joxe nga Tiwaawan. joxe nga Tiwaawan nag joxe woo ko sama yoon nekku ci kon moom fu bëggoon ñu xam ni maa ngi dégg sax grand sëñ de Dakar de passage maa ngi koy nuyu. muy wax ni moom sax àjjuma dana génne un million et quelque def ko ci xuma ci ci jumaay Tiwaawan mais am na ñu cee def lu mat ay cent millions ñaanuñu ko jaru ko parce que yàlla nga koy defal te beneen bi ci des jaru woon a tudd ndax moom ëmbul waa Tiwaawan dong ci jumaa jooju mu ngi ëmb umma islamique bi la ëmb moo tax gis nga moo tax man la dafa am lu des te dañ ko yaakaare ni ci xale yi la dese mais ci ñoom la des. ok am na beneen ñu ñu fu ñu fu ñuy posé question lan moo waral toujours président di nekk ci tàppe bu njëkk bi dañu yaakaar ne foofu ay euh, nga xam ne bu imaam gàggee nga mën ko gàkk di moo fay taxaw protocole bi la ñuy respecté waaw déedéet loolu moom loolu moom am na ay nuwaab nuwaab mooy ñoo xamante ni vraiment du président donc am na ñu fay taxaw ñoo xamante ni tey bu gàggee ñoom ñoo koy gàggan <coughs> pardon ñoom la bàyyi daam jiyén daan def te jamono Maodo Sylla noonu la daan def mais le président c'est le président de tous les sénégalais waaw war na fu mën a toog du du du ab yéefar du dara problème bi amoon lu mel nii amoon na jamonoy Senghor Serigne Cheikh moo ñu koy nettali Senghor ne woon na day tabax benn strate ci biir jumaa ba cow am fa Senghor da daan ñëw assister prière bi parce que moom mooy président de la république war na mën a ñëw julli si toog ca kanam wax dëgg yàlla nag eh, man lu ma contre contre Macky Sall eh, bu dee jumaa la wala fu mënti doon tey tey buñ ko xoolee président Ousmane sonk wala boog tey eh, misaal bi may joxe ki ma gën a jege muy Barthélemy Toye Dias tey moom bu duggee église moom day préféré toog ci gannaaw mais da ngay gis ku ñëw xëcc ko dem. demal ci kanam day ko demal ci kanam. jox ko cër daal autorité la mooy ndey ji réewu ndakaaru dañ ko war a jox cër boobu mënul ñàkk. Idriss Seck nee na moom mooy chef de l'opposition. non non non non non man kooku sax bëggoon naa ñu def émission ba pare te doo tut ci tudd. mais comme que ko parce que xam nga. Euh, idi dafa am lu ko rëcc dafa wayoon léegi dafa wayadi imam looloo am wayadi wayadi mais day am day am ci nit loolu du du du idi déglu nga sorte bu mujj bi ak aaya yeeg mani la vraiment waxtaan xam nga xam nga buddi ay aaya yomb na idi Ousmane Sonko ko gën a maîtriser alquran ma maara ngay waxal de gën a maîtriser gën ko ko jëfee est-ce que toog nga ay jotaay yu Ousmane Sonko di tudd alxuraan bëriwul di def conférence de presse di tudd ay alxuraan mën na wax ci wolof nga xam ni kii la muy wax ma nga ca Bàqara wala ma nga ca Ali am na loo xamante ni baax na man duma ko dàq parce que man fu may waxe ñaari baat ñetti indi ay alxuraan mais boo koy def